inauguration usine ndox bi nga xam ne mooy Kër Momar Sarr 3 bi nekk foofu ci Sinthiou Yoro saajo mu nekk loo xamante ni gis nañ ni ñu bari ñu ngi wax ni mobilisation bi dafa échoué li ni mel Omar lan nga ciy àddu. salaamaaleykum mbooloo mi asalaamaaleykum waa mbokki Thiès asalaamaaleykum jullit yi asalaamaaleykum ñëpp ki nga xam ne doomu Thiès waa nga di doomu réew mi di doomu Sénégal ñoo ngi leen di sant di leen nuyu di leen ziyaara di leen baalu àq. Euh, man nag yàlla def na sëñ Omar man yàgg naa artu ñi nga xam ne ñoo nekk APR te président da leen fal ndax li am Cees gàcce la ndox dafa am yërmande ndox lu mu bokkul dara du baax booy jàpp dangay ndox lépp looy def ndox da koy fekke lu mel noonu ñu koy ubbi ci biir Cees kilifa diine yi nekk fi man de gisuma ku ko yëg mobilisation bii gàcce la dañu waxante dëgg yàgg naa leen wax gis nga wor yàlla moo wax ci alquraan inna allaha la yahdi qayda alxaa'ilina yàlla du ajal pexe workat ay nit bu ñuy ànd dañuy ànd ci dëgg dëgg moo neex yàlla man nag yàlla dimbale na ma duma ma découragé mukk tànk awma lu ma bëgg bu ti bii di doon xeex découragé wul ba yàlla may ko li mu bëgg Serigne Touba bi mu doon xeex nit bu nekkee ci dëgg bul découragé képp ku sax ci dëgg te man nee naa la dëkk bi moo ma ñor Thiès moo ma ñor Sénégal moo ma ñor président moo ma ñor ak li muy def te ñu war koo feeñal ay jëfam nit ñi nekk fii di xuloo di xeex te loolu du yoon. lu jiitu commune bi nañ ko wutal kuñ ko dénk loolu moo tardel Thiès nañu wut ku baax. koo xam ne ku jege nit ñi la koo xam ne heure bu ñëwee nit ñi gis ko ñu ne ko commune baa mais tant que commune bi ak département bi dañ koo jaxase boole ko jox ko benn nit wallahi dëkk bi du du du mos a jag kees du mos a jag man maa la wax lii. ki nga xam ne moo yor département bi moom yàlla ko ci yàlla defal jàmm yàlla defal ko fa jàmm ñu resté ci département bi commune bi président yàlla def na Thierno Sall bi mu jógee ci commune bi ba léegi war na wut ñi nga xam ne dénk na leen eh, commune bi ndax ñun bu ñu ko laajee ñun xam nañ dëkk bi. man kees kenn gënu ma koo am kenn gënu ma xam porteur de voix yoo xam ne bu ñu génnee seeni nit mun nañ jàppale président mu am ndam. alors euh, dem ñan ñooy porteur de voix yooyu. porteur de voix de kees xam nga ko porteur de voix kees yaa ngi fi soo ma laajee ci mouvement yi ma jiite ma wax ne su ma paree ma wax ci ñi ma war a wax. Mhm. porteur de ah, porteur de voix yi mouvement de soutien. yaa mouvement de soutien yi porteur de voix bari na bari na comme boo xoolee dama am gàcce Ablaye Dieye keroog ma ko ma ne ko Ablaye mu ne ma noo man yëgu ko. lu amee nañ dégg seen tànk wax leen ko Ablaye Dieye li muy def bayal ak lii nga xam ne mu ngi koy liggéey ci mouvement yi jël alalu boppam di ci def mais lu mel ni abla Dieye bu génnoon rek li nekk bayal bu génnoon rek mais kenn waxatu ko président dina kontaan ah ñu pare ñu xool mouvement bu mel ni Babacar Pascal Ndione alalu boppam la jël dem defe ko defe ko mobilisation génne na deux millions cinq cent mobilisé na dix car Babacar Pascal Ndione ah loolu loolu loolu loolu loolu du loolu loolu du yoon yëgu ko leader comme docteur Ndiaye ngay bàyyi ba ci suba sa ngay ñëw di ko indil carte loolu yoon la nañu waxante dëgg loolu du yoon ma Mamadou Gningue Itocom ah ñi nga xam ne seen man li ma leer seen alal bopp la ñuy demee jëlee leen ko Ousseynou Diouf booy bi dafa dem ba découragé nañ waxante dëgg nag Ousseynou man gis naa bu jaay ay terrain def ko ci biir APR. Ousseynou jël na fi vingt neuf conseil yóbbu leen palais ba léegi amul suivi man ak ño ñoo ànd loolu leer na àdduna leer na ñëpp kenn toppatoo ko ay ko ñun bokkoo réew mi. conseil municipal ay maa la wax lii ak ay ñi nga xam ne ci réew mi lañ bokkoon nee nañ jikko yi Ousseynou rafet na dañu ko bëgg ànd ak moom jàppale ko mais bu mu demee mujjul fenn xam nga lu bala ah boo xoolee tey Habib Habib Niang bi nekk jaxaw noor bi amoon na problème nañ waxante dëgg ndax boo nee Thiès boo nee oh, eh, noor nga ciy teg maa nga ne noor nga ne es moo ëpp doole moo ëpp population mais yàlla def na bi ma Mamadou jee génnee àdduna kenn toppatawul mouvement bi yàlla def yàlla indi Habib Niang Habib ñaa moo ngi def liggéey bu mucc ayib li nga man Omar neexaluma kenn kenn neexaluma mucc ayib moo ngi koy def ci noor bi di génn ay carte de santé di tijji ay robinet di monter ay lampe di def lu ne soo vérifié da nga ko fa fekk Habib Niang yàlla ko yàlla fal cat mais gis nga bu kanemee tuuti nga gis ñi nga ñu commencé koo xeex ñu maa ñu commencé ko ki nane benno man nee la benno ties rafet lu wuma nu ñu doxale benno yaata lu ñu yaata lu ñu ñaar te président na conté ci mouvement yi mouvement yor problème bi nañu waxante deug ala ñangi ni demutul sax ay réunion man toujours ma top len jigen ñangi fi son kéro na bu jigen man damay seede ci nit luma xam wa ma shahidna illa ma alimna dafa am fu ma fekk ñu tok non di waxtaan mané ko nabu yaangi ki de mu ne ma man dal dama bëgg dem séti aji jaata séti ñëpp ñu jubo ñu ñëw nek benn ma ne ka ah loolu de wax dama loolu lu rafet la nit jàmm la woon dañu war a bëgg nañu xam ne président fi mu jëm président fee mu jëm caaxaan yóbbu ko lii ay ay dëgg-dëgg la ñu génnee porte de voix ñu ñu ñu ñu jàppale ko. et puis ñoo ngi félicité président li mu def jël ndey tike jox ko direction suñu yàlla dimbale woon ba mu jox ñu ñett wut ay wut ay wut ay wut ay kii wut ay. wut ay ay de mission tasaare ko ci dëkk bi comme Ndeye Tické am na te Ndeye Tické jigéen ju baax la moom it lu mu am moo ngi koy def ci askan wi loolu day baax mu jël mu gersu ñu jigéen ñi nga xam ne ñoo ngi fi ku mel ni ñoom ay ñoom Mariam Diop Sylla ñoo ngi fi nañ leen gersu aji jaata man am na ñoo xam ne billaay Omar su ma leen leen xam nga lu ma mais comme xam APR lañ nek rek bu japp ga président da nga ki dama leen dañ leen di yeureum xeyna na amone ko ak direction poste li ci dëkk bi xeyna su man nañ jox président résultat mais benno luñu bëgg nañ leen fal ñoy dem ci kaw ñoy wax président du yoon gis nga lu dul jaxase amul luñu fale ku dem ci président du wax intérêt dañuy tok naan seen intérêt mawul lu leen ki man duma tuddu kenn mais am lo xam ne rafet lu mako man dox lu jël naa Cheikh Kanté indi ko fi ñu génn ko dëkk bi Moustapha Diakhaté ñëw na fi ñu mujj dem xaritoog moom yàq lépp xam nga lu dëkk bi maa ngi ak ñoo xam ne barke Salaatul président bu waxtaanee ak ñi ma war a waxtaanal dina waxuma la gagné de gagné yàlla ko yor ndam moom suñu borom ma ko yor mais changement dina am mais nii ñuy doxee duñu am dara nañ waxante dëgg man dëgg ma yàq ndax su may lekk joxuñu ma ko su may naan joxuñu ma ko président nag yéene naa ko jàmm naa ko salaam. beneen mbir mi am na koo xam ne moo ngi fii di def lu baax kooku ñëpp xam nañ ne du lu mu toog du lu mu kii Mor Gueye sopp na bi lu nangu xam nañ ne Mor Gueye nit ku baax Mor Gueye léegi toll na foo xam ne man sama xarit la am na mbooloo yoo xam ne dama ko naan sax bu fu dem ndax boo demee day perturbe mbooloo koo xam ne adduna foo tourné yaa ngi def lu rafet yaa ngi def lu baax foo mbooloo moo ñëw boo jógee mu tas ana Mor Mor ñibbi na. su kanamee da ngay toog lu mu am ci lu baax nag moom koy def mais Mor Gueye il faut président ñu wax ñoom ñi nga xam ne ñoo nekk ci kaw il faut ñu ne président na nga woo Mor nga waxtaan ak moom. loolu rafet na ñu dem jëli ñi nga xam ne dañoo bëgg dugg teñ kale leen man xam naa leen du ma fi tudd ay tur loolu day ñuur leneen Ablaye Samb parti la yor doomu Cees la moo ngi nii dem nañ ba wutal ko audience ak président nit ñu yàqu yooyu baaxul élection la jëm te nit ñi wax nañ ma de ñun dofuñu duñu toog suñu carte la ñu yor dañuy bàyyi ba élection yi jub si ñu ñaan dañuy ñu naan dañuy woo ñun duñu dem ndax da ngay préparer élection ñëw na ba pare samedi bu jotee te ñoo dugg ci dëkk bi ñu ñëw jege nit ñu wax ak nit ñi ubbi seen téléphone yi ku ñëw seeti leen loolu rafetul man am na loo xam ne gëwuma ko docteur Ndiaye nañ nangu gis nga ni lu waay nangu nangu nangu yàlla moo ko may baax na koo xam ne nee na man du ma fanaanoo mer mais jeex na ñu jàppale nit ñi Omar dëkk bi nit ñu baax ñaa ngi fi bëgg nañoo ñëw mais dañ leen a kale amul benn responsable bi nga xam ne APR la nekk jóg naan damay dox tey seeti diw seeti diw te nit ñi seen i carte la ñu yor bu élection jotee ñoom bi Thierno jógee ci ñoom rek la ñu waroon préparer fépp fu nit Thierno nekk ñu jëm koo dooleel jàppale ko waxuñu Thierno man sequma ak moom dara lu dul jàmm xam nga lu ma la su ma ko sama frère la damay nuyu ma nuyu mais ànd diggante jëkkër ak jabar sax dafa am fu muy yem xam nga lu ma la am fu muy yem fu yemee nga xam ne yàllaa ko jeexal mais jaruñu ñaawoo dëkk bi nañu xool intérêt da nga xool maire bii tey li li ñuy wax fii ay maire ñun dañuy ñaan yàlla ñu am maire yi mel ni ay Talla Sylla maire yi nañ jël ci moom référence maire day jege population mais maire yoo xam ne kenn du leen gis kenn du leen dëgg man gawuma ko mere wu ma leen nag man mere wu ma kenn dinaa fi toog du ma tudd kenn mais ku jëf ma tudd ku jëful maire Lamine Diallo di def ay effort. non man maire Lamine Diallo nuyoo laa seq ak moom man daal li ma gis mooy taali si laa daal jaajëf jege na population bi. Aliou Sow nag le maire non sama kooku sama rakk la mënu ma wax ci moom lenn sama rak la bon jàmm lañu seq su ma ko bi nuyu ko mais daal man daal xam naa taali si laa moom meilleur maire Thiès ni yeneen maire yi ñëwi ëllëg yal nañu yàlla jox maire yi jege population loolu la ñuy ñaan. maire yu baax jege population. alors kon yéen li ngeen di gis ñuy wax ci Thiès euh, diggante am na jafe-jafe diggante Talla Sylla ak maire yi yéen lan mooy lan ngeen ci àddu. man li ma ci yaakaar na nit ñi xool intérêt maire dëkk bi ñu bañ a xool intérêt parti intérêt Thiès toll na foo xam ne nañu xool intérêt dëkk bi mais ñu bala xool intérêt parti ndax boo xoolee Thiès dafa mel ni dañ koo tënk doo liggéey soo taxawee ñu naan dafa war dafa def nii. wax ñu ñaaw baaxul te nit ñi nañ bàyyi bu ñu toogee ci presse yi di nax di di xaste xoolal président li koy nit ñi di wax. mel ni léegi ku mën a xas président dañ fii ku mën a boo mënee saaga nit ku baax ñu ne am nga buzz loolu mooy buzz yàlla nañ yàlla musal ci buzz boobu soxna président nit ku baax la xoolal booy xaadim sàmm bee nekk ci docteur xale boobu xoolal action bu mu def Omar. fekk daara bu tum ranke nga fexe ba ñu financé daara. ñu nar ko nangu ñu ko nangu nga dem def xool xaadim xam nga ne mom tay alquran la dekkalaat li yalla di wax man may ar sama téré bi bo bo def nako yi yalla di wax kenn duko wéddi weddi ah, xolal acte bobu mu def xam nga Omar damay terminer sama wax dama bëgg nit ñi nañ waxanti dëgg président yow lay waxal xolal ancien yi lañ gën di wax ñom Amadou may Amadou may warna tok ba tay melni du yoon nañ waxanti dëgg mais Amadou may bo man bo demee kër mu won ma sen premier réunion mais Omar damaa tiit ma ne ko mais Amadou lii nag mu ne ma premier réunion ay AP ma gis fa tur ñoo xam du ma tudd fi seen tur damaa tiit faale wuñ ko sax duñ ko lijjanti duñ ko woo euh, booy Pape Demba moo gën a yërëm tëru ñëpp damay leen di ñaan Pape Demba wul leen fu ngeen ko dugal man indi lu ma leen mosuma dem ci benn responsable Thiès maa nga kii président fal ma ne jëlal sama doom xëy na bëgg naa ko mais nañ dimbale Pape Demba ñu toppatoo anciens yi. anciens yi sonn nañu femme boobu ndey sukay sonn nañu ah, ah ak euh, femme boobu député boobu suppléant ba mu tuddati kii seen mun a Seen ñooñu nit ñu baax lañu man benn yoon laa ko gis mais dama dem këram dama ko respecté ma dem Diop si laa xoolal barke Rasulullah man yàllaa tax may wax Omar lu mu liggéey lu mu ci am mu dimbaleeku nit ñi nañ dimbale su ma leen nee mouvement yi man xam naa mouvement yi man du ma fenn Omar. sama kàddu gu mujj daal mooy. mangi wax ak ñi nga xamne président da leen fal nañ gor gorlu ubbi sen téléphone yi waxtaan ak nit ñi nañu xamne nit ñi kenn mu leena nax